E jotaayu xibaar intersyndical bi ëmb liggéeykat. ku nekk xam na ne dañu nekkoon ci grève grève bi ñoom doon onzième plan muy grève nationale bi. onzième di di yëkkati seeni kàddu lool nag la ko waral bokk na ci nag jafe-jafe yu ñuy jànkuwanteel. ca mairie bu kaw Kaolack waaye itam nekki ni kii di maire euh, Serigne Mbuub tax rek ñuy xamle ne fii ak àjjuma moom bu ñu amul lu ñu bëgg dinañ dàbbaliwaat fa mu gën a méttee rek ngir rek ja ñu jàppale leen euh, ci loolee nga xam ne moom la ñu bëgg da ngeen teewlu ay kàddu secrétaire général bu mairie bu Kaolack muy àddu euh, jëmale ci mbir munu nu mel buñ ca noppee dinañ àddu wax ci lu soxal délégation bi nga xam ne jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu bi réew mi Antoine Félix du Diom di délégation du comité d'organisation d'AK 2023 L'Olena nag ñu war ko amal ni ki Tiwero fan ci weeru mars atum 2023 ki l'Olena nag la ko Tile bokk na ci ngir waxtaane ci lépp lu jëm ci wàllu boobule xew-xew ngir Tile rek ana def ngir rek a kanam bu baax secrétaire général bu awale jàmbaar yi du di docteur docteur Abdourahmane Diouf moom nag daal dina yëkkati ay kàddoom daal di àddu nag jëmale ko uh, ci tolluwaayu dëkk bi rawatina ci wàllum politique ak yeneen yu nu mel mu daal di joxoñu baaxaamu tuuma uh, ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi Macky Sall daal di xamle ne rek lu ji njaak moom mooy njaak ba tax rek di xamle ne rek uh, ki li nga xam ne moom mooy jàmmi réew mi ci ay loxoom la nekk da ngeen teewlu ay kàddoom ci le jotaayu xibaar ñaareelu xaaju xibaar yi mbokk yi ñaari ponk lay doon xibaaru biti xew ak tàggat yaxam moo ko yóbbu ral kon mbokk yi ponk yaa ngoog su ngeen loo tuuti ñëw ak yéen ci yaatal bi. asalaamaaleykum mbokk yi gannaaw ñu leen nuyoo waatee beneen yoon xibaar yi nañ leen ko junjee ca bopp bala ñu koy wéyandee ak seen intersyndical bu ëmb liggéeykat ya féete ca mairie bu kaw Kaolack ñoom nag mu mel ni ba tey ñu ngi wéyal seen i bañ doon amal loole nag la ko wundu bokk na ci jafe-jafe yu ñu jànkuwanteel ca biir mairie ba waaye itam nekki ni ki nga xam ne moom mooy meex bu Kaolack di Serigne Boubou tax rek la xam xamle mooy fii ak ajuma moom bu ñu gisul lu ñu xamle nañu dàbbaliwaat mbir moomee ñu teewlu secrétaire général du mairie ba Cheikh Sek. ku nekk xam na ne dañu nekkoon ci grève grève bi mu doon onzième plan muy grève nationale bi e plan bi jeex na bis ni ki tey ñu waxoon ñëpp ne ñëpp nañ rejoindre sen poste yi wara dem liggéey sóoroon nañ li nak mais terewut ñëpp paré won nañ pour ñëw liggéey ñëw ñëw ñëpp ñëw nañ heure mais biñ ñëwee liñ fi fekk moy mu tek fi ben dispositif sécuritaire ño xam da leena armée jox leen matukaay yëpp pour ñu def jëflante ak liggéeykat yi ba tere leen dugg seen bureau yi mu ferme ferme porte maire bi yëpp da koo ferme changé serrure yëpp ne kenn du dugg ci maire loolu nag li ci gën a garaaw bi mu ko defee ba pare dafa jël nag personnel bi nga xam ne chambre de commerce bi mu jiite la ñoom la indi teg leen fi ak cœur de ville personnel bi mu jiite mais jëli it militant yi nga xam ne ñoo nekkoon ci mouvement bi doon ànd ci biir maire bi nga xam ne amul dara lu leen takkee ak maire bi du benn kayit du recrutement du dara. tey ñooñu la dugal ci biir mairie bi foo dem ñoom ñoo fa nekk ñooy liggéey. les travailleurs sont là travail ndax li may def santu leen ma ko ndax li may def santu leen ma ko ndax li may def santu leen est-ce que am na kenn ko ci personnel bi ku àndul ci lii préfet informé nañ ko wax nañ ko la xew. waxoon nañ ko rek bu lëndee bu nit ñi ñëwee bëgg a jël seen post bi mën na jur lu nekk su fekkee mayuñ leen ñu ekk ji. sëriñ li mu bëgg mooy militant yi mu ci biir. bi politique ñom la né cour ko kur dana leen dugal ci biir maire bi bolé ko wa chambre de commerce bolé ko wa cœur de ville dama né lolu xawma ku koy nang way ñun liggéey kat yi duñ ko nang fek aljuma chaque jour comme dañoo wara liggéey si. danañ bindaat tey alerte képp ko xamné jot na ci wax ko né ko Serigne Mboup bëgguna transformer mairie de Kaolack comme une propriété privée et personnelle. mu nekkoon ay kaddu secrétaire général bu mairie bu Kaolack di Cheikh Seck cérémonie officielle bu ñu jagleloon li nga xam ne moom mooy 72 heures Sine Saloum ñu ko doon amal ca cœur de ville bu Kaolack mu mel ni ay kaddu ki nga xamante ne moom mooy Bour siin ñoo ko bàyyi Diouf daal dina soxal askan gi bu baax a baax gannaaw bu mu àddoo rek jëmale ko ci wàllu aadaga cosaan waaye tam wàllu nomination royale yi nga xam ne ñu ngi wéy bépp tey di koy amal ñu

wax région de Kaffrine ak leneen ak leneen loolu administration rek peut-être moo ko indi diggante Sine ak Saloum amul dara lu leen mën a séparer la preuve man maay buur Sine ñoo ko bàyyi Diouf Fat Diène suma nijaay moo nekk nii Thierno Ndaw Kumba Daga boo déggee Fat Diène mooy suma yaay boo dege Kumba Daga mooy yaayam ñaari gelluwaa ñoom ñooñu meñ donc fi ak Saloum Sine ak Saloum Guelwaar rek mo fi meuna tok pour nek bour en fait ñun ñun li ñu def ni c'est pour que xalé yu délo ci sen culture parce que buñ ñu sen culture la déperdition des valeurs là bi ñu am à l'heure actuelle loolu moko indi ku ne da nga wara xam sa bop bo xamé sa bop tok ci sa ànd fo meuna dem ding fo meuna mën a mën a def maintenant islaam bi ñëw na fi ci la ñu bokk. mu nekkoon ay kàddu yu tukkee ci buur siin ñokko bàyyi juuf si ñett fan yi nga xam ne amaloon nañu ko daal di ko jagleel siin Saalum ñu àddu wax ci leneen secretaire général bu awale jàmbaar yi ànd nawle di docteur Abdourahmane Diouf moom nag daal dina yëkkati ay kàddoom daal di ko jagleel nag li nga xam ne moom mooy wàllum politique fii ci diwaanu Sénégal rawatina nag jamono ji fi réew mi toll ak tension yi nu mu fa demee loolu nag moom moo tax mu daal di joxoñ baaraamu tuuma njiitu réew mi Macky Sall gannaaw nag ba muy xamle ne jàmmi réew mi ci ay loxoom la nekk ñu teewlu ko moom docteur Abdourahmane Diouf àdduna ci micro Kaolack TV. mbirum jàmm jàmm la paix ci Sénégal salaam la paix ci Sénégal parce que ñëpp xam nañ ne dëkk bi yëngatu na nekkuñu guerre amaguñu famine waaye dëkk bi yëngu na dëkk bi li ko yëngal mooy nit ñi dañoo xamul fu ñu jëm te nit ñi ñàkk xam fu ñu jëm boobu benn responsable rek la mooy président Macky Sall. tey ku fiy wax opposition da nga ñuy tooñ da ngay tooñ opposition parce que jàmm jàmm ci Sénégal bu doon benn néeg la dañuy wax ne néeg boobu président Macky Sall moo yor caabi ci bu ko tijjee ñu am jàmm bu ko tëjee du ñu am jàmm parce que nag moom la Sénégal joxal jox teraanga jox ko ñaari mandat mu dem bay jeexal bañ ne du dem wala boog ñi ànd ak moom ñu ngi wane ne ñoom bëgguñu dem te amu fi nag benn dëkk ci àdduna bi boo xama ne li nga xam ne askan bi moo ko moom mooy mandat bi da nga koy yor naan saa yu ma ci neexee laay wax wala bu ma ciy wax dama naan waaw wala déet tey fii ñu toll nii dëkk bi nga xam ne mooy Nigéria nga xam ne mooy dëkk bi gën a rëy ci Afrique ñu ngi organiser élection présidentielle kenn déggu ci coow Buhari mi nga xam ne moo fa nekk président def na ñaari mandaawam dem na te ñoom mat nañu presque deux cent millions buñ ko ëppul donc ñoom bu ñu fa nekkoon di xëccoo ay mandat tey seen dëkk tàkk na donc Sénégal mérité wul loolu Sénégal mérité wul coono bi nga xam ne moom la ko président Macky Sall teg Sénégal mérité wul tekk tekkaaral boobu président Macky Sall teg ñu defe ne ak muus la du ak muus ñàkk bëgg sa réew la booy xool parce que tey benn phrase benn kàddu rek bu ko président Macky Sall waxoon mooy man mii Macky Sall mënuma nekk candidat di ngeen di gis léegi dëkk bi dafay selew tension bi nga xamné mo fi nek jóge fi saaga yi nga xamné mom la nit ñi di saga bayiko ñu dem ci élection ku yalla jox nguur ñu xamné ya yor nguur donc ñi di ñaanal Sénégal nañu xam ne jàmm ji ci loxo Macky Sall la yor ñun jamm rek la ñuy wër dañu bëgg dem élection ki nga xamné mom la yalla jox ndam mu jël ko loolu la ci bëggoon wax. junjoon naa leen ko ci boppu xabaar yi jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu biir réew mi di Antoine Félix Diome moom nag daal dalal délégation gi nga xam ne ñoom ñoo ëmb comité d'organisation bu Dakar atum 2023 loolee nag la ko wundu bokk na ci ngir rek ñu waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu xew-xew waaye tam ñu xool ana naka la ñu mën a def rek ba gën koo ñongalaat bu baax a baax ñu teewlu jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm wàllu biir réew mi di léegi fàttali nañ ko ku nekk xam na ni daaka euh, waxtu ñaan la waxtu jaamu yàlla la waxtu toroxlu si suñu borom la ki nga xamante ni moo ko sancoon muy Thierno Mohamed Saïd loolu la si jubloon bi mu fi jógee ba léegi depuis 1980 gis nañ ni ñu ngi koy ameel ci amin bu rafet ci njiitalu Thierno Cheikh Ahmed Tidiane niñ ko waxé won légui ni rek liñu jot ci ndigal jóge ci président de la république son excellence Macky Sall jaarale ko ci premier ministre Amadou Ba moy service état bi ñom ñëpp ñu bokk àndandoo ak yeen liggéey ko ba suñ ci yeggé ñu amé ko nu kawé suñu njort gouverneur bu Kolda dina fileeg boobu topp lépp loo xamante ni jëloon nañ ko ci engagement ni ñu ko gisee daanaka service su état yi ñëpp ñu ngi fa tàmbali liggéey bi dinañ ko wëyal bu ñu yeggee ci njëlbeen gi tamit ginnaaw daaka fukki fan lay am su ajoo yenn yi ñu xoolaat ko ci wàllu demande lu dem ni créditants yi walla wàllu ndox mi loolu yëpp après ajustement day soxla su fekkente euh, en termes de service ou en termes de présence su soxla ñu ajusté ko ñu en fonction des besoins kon loolu mooy li nga xamante ni moom laa ci aussi yaakaar indi nañ

mu nekkoon ay euh, kàddu Antoine Félix Diome di jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm euh, ci wàllu biir réew mi ñu àddu wax ci leneen wuutali ca diwaanu Sédhiou mu mel ni nag daal dina changé ab xar kanam moom euh, Sédhiou nekk capitale bu Pakaaw loolee nag gannaaw ba fa njiitu réew mi Macky Sall demoon atum 2015 mu yëkkati woon enveloppe bu toll ci 200 milliards ci suñu koppal ngir rek ñu defaraat bu baax a baax réew fi nga xam ne moom mooy diwaanu Sédhiou ñu teewlu gouverneur bu Sédhiou. pas, Pape Amadou Diallo. commencé de 2016 à 2022 48 euh, engagements opérations réalisées nañ Maintenant, mu 63 pour ci engagement yi nga xam état bi jëloon nako état aussi fay réaliser lo xamni bokul won ci engagement yi nga xamni ne nako manam ñu tuddé ko euh, réalisation action hors engagement maintenant, bi nga xamni en 2015 tënk ko woon na ko def mais biñu démé demee ba ci biir état def ko donc fait euh, fay toll ci en tout cas 211 euh, actions yi nga xam état retenir pour def ko engagement yi mu jëloon en 2015 ak li nga xam réalisé, réaliser nañ ko te bokul won ci engagement yi donc fay dañuy toll ci 289 milliards hôpital bi mom Euh, dañu naan li ñuy tuddee un sanitaire maanaam euh, lu nga xam ni la dafay jëriñ du yem Sédhiou rek mais dafay jëriñ Casamance yëpp parce que tey dina jóge am ñu jóge Ziguinchor ñëw faju si Sédhiou dina am ñu jóge Kolda ñëw faju si dina am sax ñu jóge si sous région bi ñëw faju si Sédhiou donc pour wane solo bi nga xam ni hôpital bi am na ko te loolu dafa dafay yokk suñu fierté que wax dëgg yàlla état bi fàttewul Sédhiou. parce que bu njëkk lunak daan jóge Sédhiou pour dem Ziguinchor lu nekk ngay daj bala ngay yegg Marsassoum waaw kon nag tey jii bu la neexee mën nga jóge Sédhiou rapidement nga rallier dem aussi bu la rapidement nga loolu mooy wane euh, solo tali solo yoon mais bu fekkee ni itam euh, yoon yooyu am na maanaam ñuy wax désenclavement externe maanaam jóge Sédhiou dem beneen région dégg nga te si loolu sax mën nañ si boole pont wu Gambie bi parce que déjà boo jógee Dakar facilement nga ñëw Sédhiou ndax pont boobu xam nga ku xam Casamance xam Sédhiou xam ne zone de production la te zone de production aussi du lu ngi produire di ko bàyyi sur place foog ñu génnee ko pour mën ko en tout cas jaay loolu nag dafay baax ñu defar yoon yi si diggante dëkk yi dëkkaan yi pour que it produit yooyu ñu mën génn parce que bu ñu fàtt ni Sédhiou mooy région bu njëkk si wàllu anacarde waaw li ñuy produire ci anacarde amul région bu koy produire leneen li itam mooy affaire ceeb bi nga xam dañ koy mbay nawet Sédhiou moo jël ñaareelu place bi ci ci gannaaw Kolda ci wàllu banaana bi itam Sédhiou mooy jël ñaareelu place bi ci gannaaw Tambacounda waaw ci wàllu crevette bi itam Sédhiou mu ngi ci def ay jéego yu mucc ay bu ñu jógee diwaanu seeju nag dañuy dem wutali Italie foofe nag ak doxu ñaxtu bu ñu fa doon amal loolee nag ñu ngi ko doon amal ca capital ba di Rome la ko waral nag bokk na ci ñett poñ yoo xam ne ñoom daal loolu la ñu wax maanaam jëlee fii ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi Macky Sall waaye tam fonkaat bu baax a baax li nga xam ne moom mooy wàllu démocratie te daal di génnee ñi nga xam ne ñoom la ñu jàppoon ci wàllum politique ak yeneen yu nu mel ñu teewlu suñu ndaw bu ñu fa teewal ca diwaanu Italie di Ousmane. Ousmane Diop. waaw ah, mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi ànd ak yéen fii ci Rome di capitale Italie euh, fii ci capitale administrative bi nga xamante ne moo nekk ci Italie ñu naan ko Rome. ni euh, ngeen gisee ni image yi euh, gis ngeen tey diaspora bu Sénégal la communauté sénégalaise ñoom ñëpp ñoo daje fii tey fas amal benn dox ñaxtu boo xamante ni si ñetti fànn la. bu njëkk bi ñi ngi ko tuddee nii nee nañ ñoom dañu bëgg président Macky sàll jël ay dàllam ak bagaasam abal leen palais bu Sénégal dem ci jàmm ñaareel pàcc bi mooy bi nga xamante ni mooy euh, dañu bëgg Sénégal am liberte bi nga xamante ni noonu lañ fa juddoo yaroo fa màggee fa kenn waru leen bunta xataal kenn waru leen sonal beneen bi mooy lu ko waral yëpp su ngeen xoolee ci photo yi da ngeen di faral di gis euh, tey par exemple ñu ngi bind liberté pour tous les détenus politiques maanaam loolu pàcc bu am solo la beneen bi ci des ñu bind Euh, góor ca wax ja euh, Macky Sall dégage su ngeen xoolee loolu yëpp euh, mi ngi noonu beneen bi ñu bind no no justice waa anglais lañ ko bindee no justice no peace maanaam justice amul jàmm amul beneen bi ba tey mi ngi noonu ñu joxaat leen ko gis nga mi ngi nii liberté pour tout les détenus politiques focus 2024 tey ñu janoo fii ci Rome capital administrative bu itali ñu sénégalais yi fépp si diaspora bu Italie eh, maanaam ci région boo yaakaar ñoom ñëpp tey daje nañ fi. lii ci njalbeen la rek ñu tuddee ko avant goût su ngeen xoolee daanaka ñi fi war a si tey ñu mën xaj ci dëkk bi sous contrôle lay daal di doon ci justice bu itali waaye yaakaar naa Sénégal baaxoom ak yaroom ak lu mu mënti doon gis nga soxna yi ñi ngi noonu ñoom ñëpp toog pare nañ ñëw sol seen dàll takk seen i jiin ñëw fas yéene wane seen bopp ci li nga xamante ni mooy bu diaspora bu senegaal kon jamono ji ñuy wax ak yéen fii ci Rome ñi nga ànd ak yéen di ànd ak waa Sénégal population bu Sénégal fu ñu munti jóge fu ñu munti bàyyi ko ci dëkk bi ñoom ñëpp ñi ngi toog mise en place bi. wax naa leen ko sànq ñetti pàcc yi nga xamante ni moom moo ñu tax a jóg mooy Sénégal na am liberté bi nga xamante ni moom lañ xam bëgguñ kenn ku ñu buntu xataal beneen bi ci des mooy. président Macky Sall la ñu waxoon ak moom jot na nañu abal suñu dëkk nañu abal suñu réew ñetteel bi mooy Ousmane Sonko fas yéene ko dooleel parce que moom mooy président bi nga xam moom la ñuy xaar ci palais bu Sénégal. mu nekkoon ay kaddu suñu correspondant ba ñu fa toogal ca diwaanu Italie di Ousmane Diop ba tey dañuy desandi eh, ci ñoom bi la yoon sax dañ ci ànd ak kii di Fatou Cissé Goudiaby moom nag la mu xamle rek mooy ñoom nag ci seen i droit la ñu nekk ba tax rek muy xamle ne eh, fii ak weeru mars moom dinañ amal ab doxu ñaxtu boo xam ne ca diwaanu France lañ koy amal loolee nag ngir rek internationaliser ay kaddu yi nga xam ne njiitu Pastef yëkkati woon na ko di Ousmane Sonko ñu teewlu ko moom faatu Fatou Cissé bi ñun ñu ngi ba Bologna section Emilia Romagna ñu ñëw taxaw fu pour naqar lu xew Sénégal li xew Sénégal li Macky Sall teg ci euh, ndoortu sénégalais yi mu metti lool mu euh, prisonnier politique yi muy tëj nit ñi am expression euh, politique amatul loo wax mu tëj la loolu mooy naqari boo tax ñu dajale fruit ñun ñëpp pour wane ko ne ko jooj doole ji ngay jaay ñun émigré sax ñun ñun li ñuy compter Sénégal xamu ko sax ndax 30 pour cent liy dem senegal ñun ñi ci suñu loxo lay jugee kundi ñun ñi am nañ part bu fort ci Sénégal moo tax ñu jug suñu doolee ñun ñu jugee Italie yëpp ñu daje si fii pour wax non al terzo mandato non politique non dictature à la jeunesse sénégalaise yi li leen ñaan mooy lan. mooy ñu continuer lot bi ñuy def li leen Ousmane Sonko jàngal boo amee lu la naqari wàccal nga nga wàcc ci tali bi wax li la naqari ne yaa ngi nii man maa ngi nii bu leen dara jarale fi ngeen tëdd seen kër di toog di xaar bu ñëw bu leen defaral seen réew Ousmane pare na pour defar réew fu mu ñu woo ñu wuyu nekkoon ay kàddu Adja Fall di responsable Pastef Bologne foofee ca diwaanu Italie kon mbokk yi yegsi nañ ci ñaareelu xaaju xibaar yi junjoon naa leen ko ci ndoxteel ga dañu koy njëkkee ak ponk gu njëkk di xibaar ko biti réew yi dañ ci ànd ak Ibrahima Diop. xibaaru biti réew yi dañu koy door réewum Nigéria commission électorale bu nekkee ca Abuja mu ngi ñuy xamal ni dinañu wëyal liggéey bi tey jii ci altine ji bu fukk waxtu ak benn jotee ginnaaw jongante pal njiitum réew bi ñu amal bi ñu doon amal démb ci dibeer gi commission ba di ñaan askan wi rek ñu taaxiirlu su ko defee ñu mun leen a jox ay résultat yu wóor. ñu dem ba diwaanu Cameroun kuréel buy saytu lu jëm ci wàllum jongante mu ngi ñuy xamal ni ci fukki fan ak ñaar ci weeru mars bi ñu dëgmal atum 2023 dinañu amal ay jongante pour par ndawu askan wi ca jongante yooyee fukki parti politique ñoo ca nara laale parti au pouvoir bii di RDPC muy rassemblement démocratique di parti di peuple camerounais mu wai de di amal ay meeting ca dëkk ba yépp xibaaru biti réew yi dañu koy jeexaleek réewum Tunisie foofu ca Tunisie ñu ngay wéyal di amal ay agression ca subsaharien ya agression yooyu ñu ngi koy nemmeeku ca yenn zone ca dëkk ba li nu mel nag président Kayit sayit moo ñu ko xamal mu ngook lii lee bokk na ci lu gën fës ci xibaaru biti réew yi Ibrahima Diop di koy jaajëfal bu baax a baax ci xibaaru biti réew yooyee yegsi nañ ci suñu ponk gu mujj nag di xibaaru tàggat yaram sañ caam lañ ci àndal. xibaaru tàggat yaram yi dañ koy daal di tàmbale ak premier tour bu coupe de ligue fii ci diwaanu Sénégal club yi féetee ci ligue 1 daal di dicté seen loi ñi nga xam ne ñooy club yi féetee ci ligue 2 bi donte sax am na ay club yu lig 2 yoo xam ne daal di nañu ràññeeku bu baax. yële résultat sax bokk na ci li ci gën a fës Tëngéej FC moo daal di dóor benn bal ci dara lii di waa Agel Jàmbaar door waa Sonacos benn bal ci dara Ñambour daal di dóor waa HLM ñaari bal ci dara Demba Diop daal di dóor Amitié FC ñaari bal ci dara Kër Major daanu ci kanamu Walidane ci ñetti bal ci dara Thiès FC Dakar Sacré-Cœur moo di dóor ñetti bal ci dara Stade Mbour ñaari bal la dóor waa Also ci benn Linguère gannaaw bu mu niilee ñaar ñaar temps réglementaire bi di nañ ko dóor waa CNEPS daal di dóor waa Linguère gannaaw sax bu ñu yeggee ca tiro bu kam mu dóor US di Dakar university Club naka noonee sax Douane daal di dóoree équipe bu Port gannaaw bu ñu niilee ca séance de di dóor équipe bi di équipe bu Port wax leneen ci yële xibaar ci coupe d'Afrique ci ndaw ñi nga xam ni matalagu ñaar fukki at ñoom ñooñu sax ci phase de poule bi lii di équipe bu Sénégal daal dina ci def liggéey bu am solo lu ni mel sax mu ngi xew ci ki samedi jële weesu la jakarlo ke équipe bu Égypte duma ko ay duma yu métti ñooñee di gonek malik Daffy sax gën a wone seen xarañte jëmale ko ci ñi di euh, Égypte de match jeexee ci ñeenti bal ci dara ci fàttali rek jamono ñu toll équipe bu Sénégal daal dina qualifié ci ñetti matcham yooyee sax moo ko di dóor ñu jàpp ni amna ci 9 points lu toll ci juróom-ñetti but di na ko dugal ba tey ji amul benn bi di na encaissé Assane Thiam boobu léeg-léeg mang sax moo yëkkati suñu jotaayu xibaar kon bokk yi lu nuyoo tàggoo wante lu jiwoo joxul jógu fa tàggatoo jot ci xibaar di jaajëfal bu baax a baax Assane ak doyen Wade ñoom ñu jàppoon ci wàllu réalisation xibaar yi Baye moor ak équipe ñoom ñu jàppoon ci wàllu régie bi kon xibaar yi dina ñëwaat ci kanam tuuti ci kàllaamay nasaraan ak Assane Thiam kon ñaanal leen jàmm te di ko sàkku si yéen yàlla buur bi moom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla na ko wasaare ci àdduna wërngal këpp jërë ngeen jëf